رغبتي عن سوي العصيان في البشر قالوا سفي لتفويدي إلى ملكي أمري عن الكون في سف وفي كدري قالوا سفي لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبرايا أستكي ضرري قالوا سبيء لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لخفي نهجم الجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي mu ne mu ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne mooy buur bi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di yëkkati ay kaddu. di yëkkati ay kaddu. ci turu Serigne mi nga xam ne mooy sa jëwriñ ca njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Guy Mbind. muy kaddu yu nuyoo. ak kaddu yu ak kaddu yu ngërëm. ak kaddu yu lépp. ni mu ko baaxoo def at mu ne te ñi jiitu woon ba mu si ci yéen moo tax Serigne Moustapha Matilé ànd ak njaboot gi yëpp la ca ëpp bokk ci mboolem bunti këri Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nee na ñoom ñi pa ngi ànd ak moom nii manes na cee jiital sëñ Baara moom Serigne Abdoul Karim ak Serigne du Baara xalifa si Abdoul Ahad sëriñ Abdoul Aziz Abo di xalifab sëriñ Abo Madiana mu ngi nii sëriñ Cheikh Thioro xalifab sëriñ Amad Fall Mbacke moom it mi ngi nii sëriñ Moudou Baara xalifab sëriñ Abdoul Khadim mi ngi nii sëriñ Laminum sëñ Ibra Basiru Xujja dafa am gànt waaye yabal na sëriñ Abdoul Khadim ak sëriñ Abdoul Khoudous. sëriñ xaadim di xalifab sëñ Moussaïn Baara mooy mi ngi nii sëriñ Baara Laxat ànd ak sëñ Muudu Baara ak mboolem njabootu Cheikh Sidi Mokhtar gi ñi ngi fi sëñ Muudu Aïcha ngi fi ak sëñ Jiili Matiley sëñ Abdou Samad sëriñ xaadim Diop ñoom moom mi ngi fi teewal waa kër sëriñ Ñaan Diop sëriñ Abdoul Aziz Diop. mooy xalifa njóobeen ngunta mi ngi nii waa kër sëñ xaadim awa ba ñi ngi fi sëriñ maar moomit it mi ngi nii ànd ci njaboot gi sëriñ Abdoul Ahad maanaam daal bunti këri sëriñ Mouhamadou Lamine Baara yi ci ëpp yëpp waa kër sëñ Abdoul Aziz Baara waa kër sëñ Mourou Aïcha waa kër sëñ xaadim awa ak ñi nga xam ne ña nga ne ca gannaaw fa laa ci tënk di mel ne na kenn di sufa di ñaan yàlla sunu boroom mu guddal saw fan may la ba nga yàgg jiite njaboot gi sëriñ Moustapha mi ngi lay séeréel ne njaboot gii nga xam ne ñoo ne ci gannaawam déggal nañ ko lool noppal nañ ko it ñu ko jox seen bopp lañu te di ko déglu saa su ne. kon moom it mi ngi sàkku nga ñaanal njaboot googu yi nekk ga mu nekk ca bopp kër ga dafa mel ne booy xool kenn ku nekk ci ñoom ñoo ëpp sax yéene sëriñ bi noonu lañ nekkee moom lu mu bëgg dañuy bëgg lu ko ëppal lu ko ëppal kon mi ngi la koy seereel bu baax di sant njaboot gi fi sawet tam léegi sëriñ Ousmane Mbakke ak mboolem diiwaan bi yëpp ñi ngi jotal ñi ngi jëflante. te lépp yi rafetal nañ ko loolu mi ngi la koy séeréel moom it. di wax ne ca Angleterre moom Serigne Moustapha dafa am njaboot gu fa ne di njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha di njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine Hollande ca Hollande it sëñ Sidi Ahmed dafaa demoon bëkk démb mu boole leen lëkkale leen nee ñaari kër yi benn lañu boole leen seen bopp. nam nekk ci Daaru Xuddus loolee ba mu koy defit ci turu sëñ Moustapha ak sa ndigal muy sàkku nag ñu soññi leen ca loolee bañ xam ne loolu lépp ci yow la bàyyi koo ñu xam ne it njaboot gi genn la taalibe yi benn la kon nee na mu ngi sant bu baax tey gërëm bu ñëwee ba fi sawet tey jii xam na ne amu fi kaddu ñëw ziyaar rek déglu la rek nga jox ko ndigal rek mu jëfe ko loolu mooy fi waaye moom fa mu nekkoon ak njaboot gi fa mu nekk ak njaboot gi fasu nañu toog fa di la déglu dégluwuñ keneen dégluwuñ leneen. Ahmadul Muxtaar sa njabootug bopp gën a nekkal fële ca guy mbind te sa jëwriñ ji di Cheikh Mouhamadul Moustapha nekkal la fa ci kanam mboolem lu sëñ Baara jaboote may yëkkati sama kàddu ci aw turam eh, ñaari kàddu yee ñetti kàddu yi sëñ bi su sañoon ñii mu àndal ñëpp ku ci nekk dana yëkkati kàddu wan la li nekk ci xolom fiñ la teg ak fiñ ko teg moom mi su kenn ku ne mënoon na jël kàddu dana ko def jublu gi du lenn lu may wan la li nga xamante ni moom la àndaale ak moo nekk ci xolub boppam ak xolub njaboot gi mu àndal yëpp li ci jiitu nee na mi ngi lay nuyu di jaarale ci yow nuyoo bi muy nuyoo ëttu Cheikh Mouhamadul Moustapha bépp bi nga xam ni yaa nekk ci kanam di la ndokkeel bu baax ci bu ko sañee ndax du def lenn lu àndut ak ndigal ndax la tafalu shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabuli sha'ni tayit la yasbiquunahu bil xawl wa hum bi amrihi yaamaluun ñaar yooyu yëpp da koo tënk kon mi ngi lay sant di la gërëm ci turu mboolem li Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jaboote ñëw na nag ànd ak njabootu kër gi yëpp sëriñ Cheikh Coro mi njëkk a jël kàddu tudd na ñi ci ëpp euh, waaye ñi fi teew ñëpp kenn koo xam ne ñu tudd saw tur moo la indi amu ci danoo am ndigal ci suñ kilifa ci gunge ko mu jëm si ci ab sangam ci wasilaam ña fa nekk te jage fa jóg ànd ak moom euh, nuy rafet lu baax doxinu Cheikh Moustapha ci bis bii sëñ bi nee na mi ngi ànd ak yow liggéey bi ni cheikh Mouhamadul Lamine Baara àndee woon ak cheikh Mouhamadul Moustapha noona moo doon nal jël léppam jox ko dale ci moom yam ci moom di ko déglu tañ bokk lépp waaye xam na ni mbirum sëñ Touba moom kilifteef rek mooy li ci am solo waxtu wu nekk day dox ci kilifteef yeneen nattuwaay yi ñuy natte yépp leneen la jàpp waaye jàppul kër sëñ Touba. tawféex ji sunu borom defal cheikh Mouhamadul Moustapha Touba ak Husnu ci alxuraan rek la am alladina amano wa amilu salihati tuuba lahum wa husnu maab ñoo taqaloo ci wàllu dëkkuwaay sëñ Modou Moustapha ak sëñ Bamba rek ko am Touba ngi nii Tindodo ngi nii di Husnu Maab ñoo taqaloo boo ko doon wëri feneen doo ko gis kon kooku yàlla nan ko yàlla fayal sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax di la ndokkeel ci bis bi Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci yan bu diis ba bis bii bi nga xamante ne rangoo ñu xol yëpp a ngi tuuru ndax dikkug sëñ bi Touba ñii di ko tuur ci xol ñii di ko tuur ci bët Cheikh Mouhamadul Moustapha moo feral rango ñi nit ñu mat ñoo ñee doon jooy jooy xol ñi doon jooy jooy zahirat moo fomp seeni rangoñ fomp gi nag du jël musuwaar di ko fomp dafa mel noo xamante ne ku ko gis amuk dal ca dal ga ca mat ga ulaayikal xawmu la yashqa jali suxumu is yàq si buunal muridina saadaate dafa amoon comportement boo xam ni li mbir mi rëy rëy bu ñàkk doon am ñunu Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ñàkk bu doon bu doon yan bi itam diisaayu yan bi moom moo ko war a yëg ndax ci boppam la ko sëñ teg kon bu jaaxle doon am moo war a gën a jaaxle waaye moo gën a dal ñëpp defal ñëpp ba ku ko gis loo mën a na am ak loo mën a na yëg di nga dellu suwaat ci sago ngir jëmmam ji dafa am kenn ci magi taalibe yi ku koy xool ginnaaw bi ba si mu ni ko Cheikh Mouhamadul Moustapha de man dama laa yërëm ci yan bi ndax yan bi diis na lool dama bëggoon nga wax ma gan wet laa la mën a féete jàppale la ko ci liggéey bi sëñ Mouhamadul Moustapha ni ko maa ngi lay dénk nga defaral ma sa bopp boo ma defaralee sa bopp rek jàppale nga ma loola nag nanu dimbalee sëriñ bee sunu kilifa yëpp defar sunu bopp defaral ko sunu kilifa yi ndax nu woyof ci seeni loxo sëriñ bi yàlla na nga ko yàgg a jiite yàlla na nga ci tasee ngërëmal sëriñ bi noo ngi lay ñaan nga ñaanal yoonu murit yëpp ndax bis bi sa bés la noo ngi lay ñaan nga ñaanal ummatu sayyiduna muhammad bépp ci bés bi loo ci ñaan sun borom dana ko def noo ngi jéglu cheikh mouhamadul moustapha ngi mi ngi gën a feddali ak nekkam ci sa ginnaaw ak mboolem njabootu cheikh mouhamadou lamine baara gi nu nit noo ngi lay seereel ni kilifa gu mat kilifa la kilifa gu nu doyloo la kilifa gu nu yërëm la gu nu ñeewante la loolu nag sama waxi bopp la su suñ diggante ak moom waaye wax naa ko ci turu njabootu mboolem ñim njaboote ci kër cheikh mouhamadou lamine baara ñaanal nu ko bu baax mu yàgg fi te ñaanal nu ndigalam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Moustapha Mbacke Ndiaté di magum kër gi nee na ngir ma wax ay kàddu dey du yomb du yomb. ndax yi fi jaar. ndax yi fi jaar. te sell. te mel na mu war a mel. te dara mënu caa tege. waaye nag. sëriñ bi moo wax ne. sëriñ bi ay kàddu. kaddu yi nag. kaddu yi nag. weesuwul. weesuwul. soññe. soññee. ak fattali ak fàttali. ak fàttali. ak fàttaliku it. ngeen xam ne. ngeen xam ne. jataay bi jataay bii. li muy rëy rëy. li muy rëy rëy. ki ko tax a rëy. ki ko tax a rëy. mooy soxna Aminata Lo. mooy soxna Aminata almardiya ngir pas-pasam. ak yéeneem. ak yéeneem. ci sëriñ bi. ci sëriñ bi. moo leen may lii ngeen am. nee na moo leen may lii ngeen am. ndax. ndax kat. fa mu nekkoon. fa mu nekkoon. jiitu fa. jiitu fa. ne fa ndaw. nekk fa ndaw. sëriñ bi dem fa. sëriñ bi dem fa. wax ne bëgg koo laabalal ay wax ne dafa bëgg. ku ko fóotal ay yéreem. kam nekkal. kamu nekkal. kii ma yor ndaw la. ne ko kii ma de ndaw la. waaye laab na. waaye laab na. laabug mën laa liggéeyal. laabug mën laa liggéeyal. ñu jox ko yére ya. ñu jox ko yére ya. mu dugg ca néegam. mu dugg ca néegam. jàpp jàpp. xooj yére ya. xooj yére ya. naan xooj. naan xoojit ma. moo maye li fi am. loolee moo maye lii fi am ci ga Daaru Xudoos Guy Mbind. te sëriñ bi ci boppam. te sëriñ bi ci boppam. Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha al Karim. ànd naag taalibe yi. ànd naag taalibe yi. liggéey fii ci Tindodi. ñuy liggéey fii ci Tindodi. ba liggéey bi àgg. ba liggéey bi yegg. mu yóbbu ko njaareem. mu yóbbu ko njaareem. ne ko dugub jaa fa. ne ko baax ku tedd ka dugub jaa nga fa. lii mooy njëgu gerte gi. lii mooy njëgu gerte ga. sëriñ bi ne ko. sëriñ bi ne ko. def ko ñetti xaaj. def ko yetti xaaj. bii na jëm ci yow mi leen di taxawu. bii na jëm ci yow mi leen di taxawu. bii na jëm ci ñi ngay taxawu. bii na jëm ci ñi ngay taxawu. bii na ñëw ma def ko ci li may def. bii na ñëw ma def ko ci li may def. daal ne ko Mouhamadou. daal ne ko Mouhamadou Moustapha. mu ne ko Mbacke. mu ne ko Mbacke. mu ne ko jëlee nga ci man juróom-yaari yëf. mu ne ko jëlee nga ci man juróom-yaari yëf. yent yi. yi. soxna Aminata Lo sa ndey. soxna Aminata Lo sa ndey. moo la ko fàggul. yett yi. yett yaa ko wutal sa bopp. Mhm. kon. ne kon. li xew. li xew. kenn ko xewal. kenn te mooy kenn ki. te mooy kenn ki. ab néeg. te ab néeg. ci la ñuy jage. ci la ñuy jage. ci la la di xewe. ci safaan bay di amee. li xew. nee na li xew. soxna Aminta. soxna Aminta loo rek. ànd bii ngeen ànd. ànd ànd bii ngeen ànd. benn xol. benn xol. bu sedd ne xolam bii. bu seddee ne xolam bii seen ànd bii ci yéen ñii ah nee na amul. waaye may nee. waaye nee na moom it. mi ngi mu ngi ñaan. ci daraje Cheikh Moustapha. ci daraje Cheikh Moustapha. ak Serigne Baara. ak Serigne Baara. yàlla bu leen dara dog. yàlla bu leen dara dog. amiin tabarakallah allahumma jëf. mu ne jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mënoon ngeen toog ci seen kër. nee na mënoon ngeen toog ca seen i kër. def ko fa defee ko fa. te bu ngeen ko defee. te bu ngeen ko defee. yéen a ngi ko defee ci biir day mel ni yéen a ngi ko defee ci biir ëtt bi. ndax benn ëtt la waaw. mu ne kon jërë jërëfati. jërë والسلام عليكم ورحمة الله واتركوا غزلي ما لي سوى طاعة الرحمن من وتري ما لي سوى الله إسمع اللهد خيبني وجاءني